sëriñ saaliwu ca xilaafa ga moo joxoon daaira ba xalaatu ñu tudde ko rawdu rayaxiin ci turam mu neex woowu fab a cheikh ahmad badawi ibnu cheikh mamadul fadal teg ca kaw ca bopp ba mu ànd kooki gaay saa bu nu demee ca màggal ga ñu berndeel ñu berndeel googu ma ne ci 2017 lan nu berndeeloon bernde gu tudd diraasatun xawlal muridiya tombub ñaareel ba defoon ko ci 1439 tolloog 2017 li nu joxoon tudd diraasatun xawlal muridiya ñu santoon ko Euh, mbokkum daara euh, Mouhamadul Muntaxa Jatara mu ànd caag professeur Khadim Silla sëriñ Afia Mbak sëriñ Afia Ahmad Ñang Khadim Mbàkke Cheikhu ak Cheikhna Mbàkke Abdul Wudoot ñu liggéey ci liggéey bu am solo tuddee liggéey ba al muridiyatu xaqiqatuha wa mabaadi uha ma tolloon démb ci bi nuy laata dugg ci téere bi eh, ba lim fiñ jaar ci liggéey bi bu amee jafeñ jafe nag su ko amut lañ ñu tegal tomb yii tomb bi mooy xamle diine ak xaaji diine yi dafa war ndax li ñuy bëgg a waxtaane ci biir diine la bokk ab bànqaas la ci waaw ab bànqaas la ci su boobaa nga yëg ne bànqaas bi nga nekk ci garab sàngam la sax bànqaas bi mooy almuridiyatu garab gi mooy ad diinu ad mooy mooy garab gi moo tax xam naa sunu tomb ren am solo lool mooy bennoog jullit yi <laughs> ndekete garab gi genn garab la banqaas yi ñoo bari ndax garab day bari bànqaas sëriñ bi nañu waaw is kulli wurdin yuridul murida li xadratillaahi walan yahida sëriñ bi nañu giseen bànqaas yi ci garab gi mun naa ah, mu ne bànqaas yépp ci garab gi la sax bànqaas bu ci nekk doom ba ca nekk mooy doomu garab gi sawa unin tama ilal jilaani moo xam bànqaasu a cheikh abdul xadir jilaani la awin tama li ahmad tijaani wala muy bànqaas boo xam ne a cheikh ahmad tijaani la aw li siwaahuma wala yeneen bànqaas yu bokkut ak ñaari bànqaas yi ma lim ndax su fi doon lim bànqaas yépp téere bi dana gudd ba mokkal ko du yomb ndeysaan keroog jataay ba am na solo lenn rek mooy kii suñ jataay mooy buñ ñu wooxee onze heures deux heures la ñuy ñëw <laughs> loolu daal xam naa ne bu nu woo ñun ñaare bu nu wooxee onze heures deux heures la ñuy ñëw cey buñ doon ñëw ñu woo ñu onze heures ñu ñëw onze heures ba quatre lu ne xëj na fi kon kay exposé dana jël taaxam duñ ko ko tënkuloo duñ ko bokk ay këyit bu ñu nappee ñay intervenir ñoom tam kadalik waaw waaye daal <laughs> bu gënoon rekk xam naa foofu tam jombul gaay dañ fa dugg ma nekkoon démb ci lim tegandaay yi nga xam ne ca lañ ñu teg almuridiyatu ma ma lim ca xam-xam lim ca ak jaamu yàlla lim ca liggéey lim ca liggéeyal sa mbokk wala sa dëkkandoo wala sa xame tolloon di mu ci almubaayaate mooy jaayante gi noo ciy bokkee ma limoon ci ñaari yax ci alxuraanu karim ci wàllu mubaayaate mooy jaayante jaayantu lu am solo la waaw mi ngi ci biir juróom-benneel ba al adab teggin ah waaw waaw teggin mu ne ku bëgg a bokk ci al muridiyatu da jàng teggin xam teggin ba noppi ma ni teggin allahu akbar waaw waaw moom tam mi ngi ci biir téere bi waaw ba ko juróom-benneel ca tombee nag ñu ne mooy tomb alxitaam mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot man mii wax ak yéen ñiy déglu ña nga xam ne ñoo liggéey liggéey ba dee wàcc nañ sëriñ ba leen santoon liggéey ba ak sëriñ sam ko àndal ñoom ñëpp wàcc nañ sëriñ bi nga xam ne ci biir am njàngaleem lañu gëstu génne xam-xam yi moom it wàcc na nun kay noo yëg ci kaw te wàcce gunu man mii di wax ak yéen ñuy déglu góor ak jigéen nun noo wàcce gud ah gunu suñ jaan wàcce gud ndax li tax nu nuy wàcc wala suñ jaan wàcc nañee wàcce mooy juróomi tomb yuy jàpp juróom benn dégg gi doyut ndax du information jëfe gi mooy tax mu mat ndax mooy formation moo xaat ko information ñi koy def mooy ñii ñëw suma jeexalee formation nag la tàmbalee ci waxtaanu suñ mbàkke si wi jàpp ci wii jàpp ci am alxames ak ajjuma yooyu mooy formation yi nga xam ne ki dégg ma ne la ca jiitu mooy xam-xam xam-xam daal di koy tàmbalee yitteel bu tollee ci dal mu dal bu weesoo dal mu débrouiller <laughs> bu ci dal mu dal bu dal mu débrouiller waaw ndeysaan mas naa gana ji ndeysaan Ahmed Sakhir ca kokki bu ñuy bëgg ñibbi ma ne ko man de damaa bëgg ñëw ci daara ji waaye dafa am jeeg bu ni ca kër ga saa bu xëyee tàllal leket gi mu ni waa loolu de mën naa tënk <laughs> mën naa tënk ku bëgg a jàngi si të të të ci waaye xam-xam bu ca jógee tàggat sa bopp ci ibaada bu la ko kenn mënal war ko am ma araakina wala war kaa yi ma na ja suñ borom waxoon mariama mariama naa mu ne ko bu la génn góor man doonte jigéen nga yaa mariamu inna laa stafaaki dégg mu ne ko waaw mu ne ko wa taharaki dégg nga mu ne ko waaw wastafaaki ala nisaa'il nga mu ne ko waaw yaa mariamu uqnutii dégg nga mu ne ko waaw wasjudi dégg nga mu ne ko waaw mu ne ko warka'i ma'a nu xam <laughs> ñun ñëpp ñu xam ndeysaan moom bàjjen meer soxna Jóob bu ko fekk waan bu mën nu xam rek mu ne ma xam naa ndeysaan ba ndékkiwuma meer soxna Jóob yaayi Maodo waaw <sighs> tubaarkàlla kon lii nuy jàngale nii du du information comme ñee la ñoom ba seen jaan wàcc nun noo ci des nan góorgóorlu sunu jaan wàcc nan fonk xam-xam bu num kenn man ci jàmm yàlla Pape Ndaw su alxuraan ne yaa maryamu inna lastafaaki yàlla dafa am yaakaar lool ci maryama yaakaar ji mooy dafa bëgg a may nit lum dul mayeti kenn te dafa bëgg a def lum dul defati hmm? mu ne ko waaw mu ne ko nag yow laa ci yaakaar ci waxin nag ci waxin moo tax ma tànn la ci sa biiri bokk tànn la ci euh, Ali Imran biir Ali Imran ci laa la tànn waaye tànn la ci biir nisaayil aalamina wa taharaki di sàn ma waajal la wastafaaki ala nisaayil aalamina li ma la may duma ko may jënd jigéen ndax yaakaar ji ma am ci yow yaa Mariam uqunuuti li rabbiki bàyyi ma xel was judi dëppal sëb jë warkaa yi jàppal ci say um maa raakiina bu la ko gën góor mënal ku jàpp-jàppal wax ko nag maa raakiaat looloo tax ma naan bu la ko góor mënal waxin la mbokk yi nekkate bu ñuy màggali di dem ak ñëw dañ ci boole fonk liggéey waaw fonk liggéey léeg-léeg sunu état yi yàlla na jàppale leen dig nu liggéey yu bari ma ne li gënoon yomb mooy sàmmal nu leen jot a am rek waaw soxna bu sekk na ca feeraay ba ñu sàmmal ko feeraay ba rek waaw sàmmal ko feera defe na nun la hmm, waaw eh, soxna njawa ndaw ndaw juuf ndaw juuf ne ca carrière ba ñu fonkal ko carrière ba <laughs> Oustaz Ahmed Dame nekk ca njàngale ma ñu fonkal ko njàngale ma rekk nag waxaaka sax waaye mbokk yi bu ñuy màggal yi dem ko ñëw te bëgg soon jaan wàcc ñu jàng xidma luy xidma mooy liggéeyal sa mbokk liggéeyal nit ni yow kero ba isam na mariama juddoo te yaayam yàlla sasoon ko sos yii moom daa judd rek moom tam joxew sosam di san di wax ba ne ba ne ba ne pénc ma wa saani bi salaati wa zaka ma dumtu xayya bi salaati wa zaka bi salaati mooy ibaada wa zaka mooy xidma nan ko jàng nun ñépp te man ko xam naa sëriñ Sam bu sa bu toogoon fii di ko wax boo moytul ci lay gën a leere jaayante gi ak teggin yi euh, sëriñ sa sëriñ sa sëriñ sa ñoom xaadim sila ñoom aafiya ahmad ñang ñoom xaadim mbàkke cheikhu ñoom cheikh naa mbàkke abdul wudud hmm, ci njiital muhammadul muntaxa jatara mañ santoon iadaat ñu ne ñu nañ ànd ñun ñépp jàng diine ak i xaajam allahu akbar ñun ñépp noo nga toog ñu ci ëpp yor téere ñor téere yor seeni bindukaay ñenn ña di enregistré jëme ca rajo yaag télé ya tasaare liggéey bi ba ñépp jot ci youtube yeeg facebook yeeg tabarkàll yëpp jot ci sit internet yi ñépp jot ci gis nga suñu tàmbali woon di jàngale njàngale yi werante jóg ci yooyu ma wax la ko tey su fekkoon dañ fa jóge ñun ñëpp nu yóbbu di jàng ba déwén werante sàllaaw bu fi jógutit wàññi ko lool ma wax la ko ndax nun danoo am lu nu doy sëkk waaye dinaan fi ñukk yi ne ca werante ak jàppal bayil moo ko dóor dóoru ko korpañ na ko korpañu ko da ko rey reyu ko rekk tabarkàlla dekk ca waaye ni daayira bi wooye mbooloo mi ca barab ba ñépp ñëw toog nga seen rajo yi télévision yi journaliste yi bind journaliste yi enregistré ah ustaas yi ilimaan yi notable yi chef de quartier yi ñépp ñëw toog ñu jàng benn bind jàpp ñaar fi ne de ku ci fekke benn conférence de presse da ngay dem yóbbu ko tasaare ji ko léegi nun lii nuy fekke foofa bu ñu ko doon yóbbu tasaare mën nañ ci am programme mu at ma wax la ko tey waaye tabarkàlla léeg-léeg extrait lañ ciy génne extrait lañ ciy génne allahu akbar daal koy romb jàll moo tax daayira ba nañu ginnaaw bi ngeen toogee wuyu si ci woote bi ñu berndeel leen ci ay ñam dañ leen a bëgg a berndeel ci xam-xam xam-xam boo xam ne sëriñ bi leen woo lakin unaadi kullal bilaadi sëriñ bi leen woo yam daan jàngale di ko bind ca lañ dem tibbal leen ca boolu reer nu bëgg ngeen ñëw nu séq reer bi noog yéen boroom xam-xamee noonu ko wax ñu ne ñu reer bi liñ la ni njëkk xamal te fekk xam ngeen ko kon fàttali lay doon gis nga allahu akbar boo demee Touba bañ lay berndeel ndékki lu ñu la ndékki indi rek mas nga koo ndékki kon ndékkil fàttali la <laughs> imaam Abdoulaye Ndaw añ buñ la indil mas nga koo añee reer buñ la indil mas nga koo reere ba tax boo toogee ca daayiratu rawdu rayaahin moom tam xam-xam buñ la fa indil la ci ëpp jaaroon na ci say nopp wala woon nga fu ñu ko defe wala tiim nga ko ciw kayit waaye nag fa dakkir fa inna dikra tanfau lmuminin wa dakkir in nafaati dikra fa yadakkaru man yaxsha wa yatajannabu al ashqa allasi kubra sëriñ ba a Cheikh Muntaxa nañu fi muy tàmbalee moog ñi mu ko àndal mooy mafhumu diini ad diin buñ ko waxee ci pénc mi lu muy tekki tubaab nag day wax religion tubaab day wax religion léeg-léeg baatam boobu du diis du am pois bi lay jox lu mën a yar say cër say bët say loxo sa cër yépp baatu religion da ko dul man waaye bu ñu ne baatu addiin moom daf koy man moo tax boo ko déggee rek luñ la ca dollil nga mën a dem boo ko déggut du sotti moo tax sottandi ko yu ñu sottandi ko sunu Euh, sunu xam-xam yi ci sunu lakk yi buñ ko sottindikoo ci làkk tubaab duñ ko dégg mukk wala buñ ko dee déggit impact bi mu war a def du ko def xam nga tey fekk ab sëriñ ñu koy tudde a yow nga tuddee ko maarabu nga tudde ko maarabu li nga ci jublu ci maarabu mooy wàññi tur bi te baatu sëriñ bi tafsir Moussa Gassama mële ca kër Madaaru yàlla na ko yàlla yokku wér neena dañ ko adressé mais mooy saxekatu njariñ moo tax bu ñu ne addiin li muy tekki day diis ci xol ak cim xel ak xalaat ki cër bu ñu ne religion nag bon moom daal mu ngi noonu déggumay tubaab lool ba mën a ba mën a décor décortiquer religion euh, na ma Arfan sekk jàppale ci wàllu googu waaw inspecteur Arfan waaye dal addiin mooy al manhaju al ilahi al xaalid mooy système mu dund wi nga xam ne moom la yàlla tëral ci kaw suuf waaw idéologie bi nga xam ne moom la yàlla tëral ci kaw suuf bu fekkee dañ wax a baat bi noonu nga xam ne àdduna léeg-léeg ñu ñëw man hëjiya boobu nga xam ne moom la borom bi tëral tabaaraka wa taala nit bëgg tëral leneen lu ne ci pénc mi te bëgg mu niroog moom waaw waaye bii daal mooy bu yàlla tëral alxaalit bi xew te du xew yi mukk waaw waaw loolu loolu buñ la ko waxee ci diine da ngay daal di yëg kon lu rëy a rëy mooy ndekete kon diine benn tëralin la bu tabaaraka wa tëral tànn ci sunu biir ku nu gën man ñu raw nu daal ko ko jox ne ko yóbbul ko gaa yi yóbbul ko gaa yi mu daal koy indil gaa yi waaw waaw lu tax mu indil ko gaa yi li hidaayatil bashariya fi kulli zamanin wa makaan allahu akbar di san mu tax mbokkam ma ca Tiwaawan maam Cheikh Alxaaj Malik daal ne nuurun mubiinun ata nuural mubiina ñu ne ko lu mu fi wut mu ne li irsaadil ibaadi moo tax sëriñ si ñu ne li hidaayatil bashariya fi kulli makaanin wa zamaan wala fii kulli zamaanin wa makaan bi diina ju ñëw it diina jooju la borom bi tabaaraka taala nee na moom la tànn moom la tànn déglul ca Ali Imran ay 19 waaw Ali Imran ay 19 inna diina inda allahi al islaam inna diina inda allahi al islaam moom la yàlla tànn wax ca Ali Imran ci benn même saar bi wa man yabtaxi gayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa fil aaxirati min al xaasiriin koy léeb di ko léebal sëñ Mbàkke tabaski jot gaa yeew ay xar mor xuja dem àllu jàpp fa fanweeri goloog juróom ñëw yeew ci marché bi nit ñi di yeew ay xar di jaay ci tabaski gi moom mu yeew ay golo di jaay pour tabaski xaw ma leen am ñoo xaalem déet waaye duñu bari lislaam borom bi nee na ku bëgg ngërëmam demal ca tool boobee ku bëgg wàccantal demal ca tool boobee am na fa jënn jëwriñ ju tudd Muhammad bu ngeen demee moom nga fay fekk moom ngeen fay fekk moom nag sàkk na ay jëwriñ am na ci ñeenti jëwrin yu sës ci moom rëkk ak téeméeri junni ak ñaar fukki ñeenti junni jëwriñ yu sësul ci moom rëkk xanaa ci ñooñu lañ sës rëkk jawrin yooyu tudd ay saxaaba alxulafaaw rachiduna ña teg ci jawrin yi tudd ay saxaaba ridwanullahi taala an ajmain yeneen jawrin ya ca tege tudd ay eh, as na yeneen jawrin ya tudd asalafu saalix ca la sunu mag ñi mbokk ba ba addunay tukki ba ba addunay tukki loolu rek mbokk yi eh, leeral na yoon wu leer nañ mooy diine mooy loolu bind bi jeexut teg seen baram foofu ñaan sunu borom dund ba ëllëg te weesu ko ñaan ko mu def jàmm ci réew mi réew yi ko wër màggal gaa nga ñëw yàlla ñu fekk buy dem yàlla ñu fi bàyyi ñii dem yàlla nañ bàyyi jàmm seen kër ànd ak jàmm fekk jàmm fañ jëm bu leen neexee ci kanam tuuti ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bës 2 88 628 98 ngeen bës 2 nu ànd ci suñ jataay bi nga xam ne euh, lënd lay am ak mardi jataay bi huit heures lay tàmbali dix heures lay jeex quatre-vingt-huit la six cent vingt-huit quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-huit ngeen bés deux suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ni taxaw yor seen këyit bëgg leen a firim fàncal xibaar yi trois firim fàncal ko ci wolof ñaanal leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu àndandoo bi C3S la ci bitim réew yàlla na ñëw li ci biir réew mi yàlla na jar yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tataat wa ma tawfiqi illa wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.